asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk ñuy seetaan ci biir réew bitim réew euh, tey jii nag ñu ngi fas yéene dalal sunu mbokk yi nga xam ne dañu bokk ci Touba ca kanam féete ci diwaanu cees ki leen jiite nag nekk sëñ mbay islaam sàll doon jëwri nii liggéey bi foofu waaye ànd kook sëriñ Moustapha Guèye ñu ànd ko ak mboolem waa Thiès gépp waaye ànd ak sëñ maam Thierno ak sëñ abdu nga xam ne ci coordination soxna maam bu sa bu sa Mbàkke ci la ñu nekk ànd ak waa tubaa ca kanam nag ànd bu rafet taxawaay boo xam ne dañu yëkkateendoo di tegandoo tey nag ñu ñëwoon fii ci junatun li ma nasamoo ginnaaw bu ñu jaaree ci tubaa ca kanam ñu yabal leen ñu ñëw fii ngir jébbal seenub liggéey muy ay jumtukaay yoo xam ne dañ ko doon waajal ngir jagleel ko ñi nga xam ne dañu lor woon ci mbënd mi xam naa ngir dañuy jox kàddu gi sëriñ Mbay islaam Sall mi jiite liggéey bi mu leeral ñu taxawaay ba ak tolluwaay bi ak li ñu indi ak it naal yu ñu am ci liggéeyal sañ tubaax ñu naan déglu sëñ Mbay Islam Sall. leen jot leen nuyoo soxna maam Boussa Mbacke bintu sëñ Abdourahmane moom Cheikh Mandoumbe nga xam ni mboolem département bu Thiès képp ku fay soxna ya fa nekk yëpp moo leen jiite ànd ak ñoom di liggéey liggéey bu ama am solo ci Touba ci kanam. tey jii nag mu yabal nu fii ci barab bi ñu andi liggéey bi nga xam ne nii moom moo ko doon liggéey moom ak waa coordination bu Thiès bi mu toll ci ay ndimo yu am am solo yu baax yoo xam ne nii wax dëgg yàlla eh, am na yu góor am yu jigéen te képp koo xool xam ni képp ku waaj kuy waaj itam jëm ci mbooloo incha allahu rabbi eh, di nga ci mën a waaj muy liggéey bu am am solo Euh, tey jii nag ñu ànd ak moom ñu ñëw fekk Sëriñ Murtala Mbàkke fële ca ca ca sees ba ak mbokki taalibe yi ñu fa fekk yëpp bi ñëwee laaj leen ban yoon la ñuy jaar ñu tegtal ñu fii nga xam ne nii tey mooy seesu junnatun liman na samaaw euh, ñu fekk fi euh, kilifa yi Touba ci kanam yi waaye fekk fi kilifa yi Hizbut Tarqiyyah ak ñi nga xam ne nii ñoom lañ seqal liggéey bi yëpp muy waa maire beeg yëpp rek loolu daal moom lañu ñu soxla si yoo yónni woon tey jii ñu ànd andi ko euh, yàlla dogal nag agsi nañ ba teg ko ci loxol si Abdoul Ahad Bousso ak mbokk yim àndal liggéey bi yëpp rek jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokk yi nga xam ne yéen a bàyyi koo Thiès ci soxna Mame Bousso Mbacké ci njiitul sëriñ sëriñ Mbaye euh, Sall ak kilifa yu tedd yi nga àndal ñoo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha. mi nga xam ne moom la suñu borom teg ci yëpp bopp yoonu murit wépp ñu ñaan suñ borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér te mottali ay yéeneem te nu ànd kook moom ak mboolem njabootu sëriñ Touba gépp di leen nuyu ci turu ki yore kàddoom muy Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadir di leen nuyu ci turu jawriñ ñi nga xam ne ñoom la tànn denk leen liggéey bii di junnatun liman nazamahu nuyu it ci turu jawriñ yi nga xam ne ñoom la tànn dénk leen kuréel gii di junnatun liman nazamahu muy Serigne Habibou Mbacke moom Serigne Mouhamadul Fadil jiite Touba ca kanam di njiit li waaye sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ bu teewal ko fi euh, sëriñ Youssou Diop bi nga xam ne moo jiite daaira Hizbu Tarxiya te euh, génn léegi jëm ci te yoo xam ne sëriñ bi moo koy loo waaye sëriñ Mourtada yi mi ngi nii toog ak sëriñ Ahmadou Samb teewal ko fi naka noonu itam euh, maire bu Touba moom itam te jëwriñ yëpp sëriñ Abdul Ahad Ka jiite ko waaye mais jëwriñ yëpp nekk ci liggéey bi. di amaan mbégte nag bu baax a baax a baax ci di leen dalal ci itte ju kawe ji ngeen am ba bàyyi koo Cees ñëw fii tey jii ngir jëmmal liggéey bi nga xam ne sëriñ bi moo ko santaane muy taxawaay bu am solo nag bu ràññiku di yóbbante ay cant yu kawe ci soxna si ak ñi mu àndal ñëpp di wax ne yoon wi nii rek la képp koo xam ne dañ lay tudd tudd sëriñ bi foo ne fu ne jëwriñ nga fa war a doon dangay war a jiitu di dox ñeneen ñi ci des topp sa ginnaaw dox doxil ma mën a rafet ndokk nag ba mu xamee loole ba taxaw taxaay boobee waaye ndokkit yéen ñi nga xam ne xam ngeen loolu ba nangu cee ànd ak moom euh, sëriñ bi nag bu santaane day am ñu mu joxañ rek ne leen sant naa leen waaye lam li santaane murit yëpp a ko bokk ñëpp ca war a taxaw ñëpp ca war a jëf fexe ba li mu bëgg a am murit yëpp seen yitte ak seen mbégte mooy li seen bëgg am rek képp koo xam ne nag jëf nga ci lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti yëgal ne yow jàpp nga ca ña tax sëriñ bi am lu mu bëgg waaye ko jàpp ne boo seetaanee itam gars yi mën nañ ko def mu dox lu yàqu xamal ne yow yaa ko yàq yéen nag seen taxawaay ràññiku na ci ndax jóge ngeen Cees ba Touba dajale li ngeen am lépp ci ay yére indil ko ñi nga xam ne dañoo loro ci biir ndox mi lor gi kat yaatu na lool ñi seeni kër yàqu na ñi seen dund yàqu na ñi seen i yére yàqu na ñi seen i bagage yàqu na kon nag lépp lu ay am ci lu nit di jëfandikoo rek bu ko joxee mu jëm ci ñoom àgg na te sëriñ bi bi muy santaane loolu moo ko taxoon a jóg ngir santaane ne ñi nga xam ne loru nañu yi ñu ñàkkoon lu leen ci waaye mën a dimbalee mu dimbalee leen ko xëy na joxaat leen la ñu amoon lépp moom yàlla ma leen ko joxaan rek moo ko man waaye nag fexe ba duñ yëg tumuranke gi duñ yëg coono yi loolu moom wax dëgg yàlla noonu war nañ koo mën a war nañ leen koo mënal ci sunuy man-man ak sunuy am-am loola mooy pexe ba lu néew néew néew la ñuy dunde ak la ñuy sol moom luñ ca man ñu def ko ndokk nag bi nga xamante ne yéen bokk ngeen ci ñi nga xam ne taxaw ngeen ci taxawaay boo xam ne bu ràññu ko lool la kon nag jërë ngeen jëf yàlla seen mbir yëpp yéwén àdduna ak alaaxira ci barke Cheikhul Khadim